Uh... alhamdulilah bien réveillé dans la samsa bala maa dem ci kaaw politicien ci kaaw jaaykat bi laay njëkkee après raxas national ba jaaykat ba defoon nekk rakk ja sa la bokk rakk ja daal publier na ay vidéo di jaay ay ensemble xale na kenn dàqu leen tooñ nit ki di jaay jaayam ngeen naan ko bala ngaa mën gàddu say robb rek nga am problème maman gp nee ko jënduñu maman gp nee ko dangaa fayet mbéte néegu sëy sénégalais bàyyi leen moomu sàcc bi wax ji rafetul Bougane nag mère Gaynde am na dossier mère Gaynde da nee na daa gént yor paaka di ko dàq moytu la dem ca firikatu géntu bay ba yi ne yi daal disparaître bi bari na ci réew xëy tàggu say famille génn ñu noppee laa gis d'après Aïda Yassine bu faatu géwal lii saatin bu Modou Yade nongo gay frère Diey laa waykat amaat na beneen xale bu jigéen bu réer ay mbokkam kii nag ay mbokkam nee avant muy réer nuru woon na ko jommi c'est que ñun doomu aadama yi dañoo foog ne ñun rek a nekk ci kaw suuf des fois foog ñuy moytu yenn waxtu yi fi ne coowal politique bi ci réseaux sociaux bi rek day dindi stress ak moo tuddee kilifa yi waa seen petit galle xale dañoo réew rek waaye wax nañ dëgg ñu raamee ni ñuy ñàqu ji wàllum ñoo ngi ger na ko de laa bëgg a laaj ay mbokkam moom Wally borom kër la na lu eh explosé mu filmer ko publier pour lancer message waaye vidéo boobu ay xas la ci mujjee am kii di leen dimbali ngeen topp ko naan ko horrible c'est vraiment horrible fi mu la xew Lac Rose moo def kaa xaw ma waa ji daa yëgoon antenne bi pour xaru boo demee da doon xool ba xam Espagne sori na pour mu mën a jël gaal gi